bés bi solo parti politique la première édition de l'organisation de la journée du 8 mars nga xamni honoré di sargal Sénégal mais ma am kontante pour fêter ko ak jigen ñi parce que kuma xam xam ni ku len jege la ku len xam xam ni ku len di dimbalé la parce que dama nekk ak ñom suba gude ak beccak ku len xam tamit xam ni duma taggo ak ñom ci sene ay soxla sene ay yitte ci biir kër yi ci biir marché bi ci tefes gi ci géej gi waaye damay dem ak ñom ba ci hôpitaux yi ci sen cadre dans la cadre de leur prise en charge sanitaire ku nek xamna lu bari liñ ci liggéey bokul sax politik politique waye ñima xam politique lañ ma xamé waye lañu yëngatu ci walu wërgu yaram jigen ñi mo ëpp fuuf nak donc ma leen koy xalal xeyna tay bëss la bëssu jigen ñi la mo tax ma diko ko ci kan masken bi di wax ni du may porter tay plaidoyer jigen ñi plaidoyer moy wax état Sénégal Macky Sall mi nga xamni ku bëgg ngoro la ku am yene pour senegal la ma gis moy jappale jigen ci financement yi di len di len dimbalé ma diko ñaanat mu alléger condition d'obtention de ces crédits de ces financements aux femmes jigen ñi sonu nañ ci liggéey waye nak banki yi ñi nga xamne ñom lañu la ñu liggéeyal banques yi duñ deñ duñ deñ di fay ay intérêt waye ay pression luñu wax pression bancaire jigen ñi duñ lekkatuñ naanatuñ du weer wi deewee dootuñ amati jam, waaye banque yi ak fay gi nga xam ne dañ koy fay ak condition yi nga xam ne dañ joxe financement yi moo metti moo tax ma ne état Sénégal gouvernement Sénégal président Macky Sall mi nga xam ne moom laa àndal di liggéey ak moom ne góorgóorlu gën a dimbalewaat jigéen ñi gën leen jàppale ba jigéen ñi mën a am financement ci lu gën a di ñaan président de la République à travers le ministère des finances. mais aussi à travers le ministère des femmes que mirmi boum Nekati, mirou parti politique ne ko que mbiru jigéenu Sénégal nakh nag ay na yeween moi ko wax financement yi nga xam nañ koy jàppale dafa jeng jëm ci parti dafa jëm jëm ci par parlanto moo tax yofi man Nak sama ci ko may nit foo coalition ñak coalition and ak yow ci dëkk bi ñak and ak yow waay waay fu ma dëgg fekk dama koy wax waye nak nañ ñan gëm ni xam ni président Macky Sall yëg ni yëf yi maasewul man nak sama option ci walu gogu dama ne duma ci xaar dara lepp luma am ci concept bi ma wax concept jappalante jigen ni temps tak saaru jigen ni ma diko def samedi ak dimanche fi ci Kaolack xébuma dara luma am rek dana wacc ci base bi organiser len teg ko loxo ne len liggéel len di ñaan yalla ñu gën ko mën di ñaan yalla yàlla gën ñu sutural di ñaan yalla yalla gën ñu jappalé ba lepp luñu ko defoon ci at yi wessu nak nak man at ak genn wal lay pare lay programme bi la tollol mu taseeg wi marché bi mané nañ jigen ñi ñoo décider nañ koy fete waaye dañoo bëgg dañ koy waat déwén fi Nous avons financé plus de 1000 femmes 1000 groupements dans le département dans la région et dans la commune Nous avons ñaan tamit continuer dans les régions du Sénégal dans les départements parce que nous dañu une famille la famille est la cellule de base de la société la lutte contre la pauvreté devrait commencer donc ci jigéen ñi nous leen dimbale leen ci kër ndax xale yi njaboot gi xamuñu papa yaay lañ xam yaay jox ma ma jënd këriñ doom ma ma jënd ma jënd ma jënd dàll yaay jox ma ma jënd big yaay jox ma ma jënd mbubu yaay jox ma jënd mayo ñun man doom laa te ku nekk xam na ni sama ko jege sama waajur bu jigéen te daaw ma sonal sama papa sama yaay laay sonal dàll carax sax lu ma jàng jee sax dama naan yaay aw ma dàll carax yaay aw ma mbubu yaay aw ma yaay aw ma kaye waaye kon ku jàppale jigéen ñi jàppale nga. askan bi waye jàkkaarloo ak senegal motax may ñaakar president Macky Sall ci dans son programme ambitieux pour le senegal émergent na waxuma mu changer concept waxuma mu changer programme parce que programme moko ko taxal waaye ci biir programme bobu nako joyanti joyanti ko moy mu fexé financement bi du jotté ci ndaw yi parce que ndaw yi amna solo parce que ño yor rew mi waye jigen ñi nak amna solo na len jappalé